di gërëm ilimaan di gërëm mag ñi jigéen ñii ngeen wax nag li ngeen ci wax lu wóor la lu dëggu la mën nañoo sant jigéen ñi mën nañoo sant ñu ngeeg technique boo xam ne kenn amu ko وعلى مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتحل من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في نهر وتولج نهر في الليل وتولج الحي من الميت وتولج الميت من الحي وترزق من تزهر بقريتك اهو تذكرين اعداد لهجرته رهينتين ci kanam lay jiitu di gëmmantu di nelaw di muun di ci boole te boo fekk na jaas yaa ngee rombante ñu nag bu rëccee tey musiba dal mu ngi ci néeg bi nag tëdd ni nga ko waxee woon ko sant ay gardien ñu di ko yërlu mu woo ali na ko tëddal ma sama place ndax ñu foog ne maa fi ne bépp laa ñoo yëg même nekkuma fi ma sori ñoom ñëpp fa ñu fanaan waaye alaaji Malick ne ne sànni nelaw nag la xuus na seen biir ba génn te gisuñu ko Maodo nag ne ci départ tey bi wasalhumu wasalhumu way la famli way la famlin salhumu salhumu إذا اصطلع تراب مخافة في الروس يا يمي ولي خبر في نبي Iblisa taxaw ci bunt bi mosula nelaw moo walanteeru pour garder ko am na jàpp wi yëpp ne bi mu jóge ci asamaan moo nelaw Iblis ñii dem ci néegi jàmbur yi nag buñ ko dégg di jéem a seen borom Iblis la waxoon ak nebi xaaji Maalik ne ne way la famlin ona toroxte ku bokkoon ci réunion ba salhum na béréb a génn tiim leen ne eh diw ci ñi may fexeel la eh diw ci ñi may fexeel la eh diw ci ñi may fexeel la bu ñu génn cent personnes lañ ku tudd yaa ngi nga gannaaw yoo tàpparka mbaa simmi mbaa jaasi mbaa fett mu xuus leen ba ñu jeex fa leen xale ba toll mu ne wëlbit sëkk tibb suuf ne saa affaire wu jiwoon sànni leen ko ku suuf sa dal ba nga dee xaaji Malik ne ne wasal wu moo laaj leen laaj leen way le soog min on a corté réunion ba ko présidé membre ya laaj leen lan isa sara ba nga xam tuur na ku tuur al muqaffi Moustapha lu mu tuur turaa ba fi lu mu si seen lex ya yëguñu ko kat jant fa leen fekk fa leen jant fenke benn waay ñëw ne lu ngeen di def fii ñu ne ko borom néeg bii la xaar mooy leen see او کدی پاسه نه کیس قوم نه می به وای نه دی په کوم یا وافروا نجوا وافر ربنا امن الوحي اليه نعم دخلوا بالوي نبل يريمن وقتك يا waaye nag yàlla mi kenn dul na ba alimul xabir moo yeb le yebal jibril ne ko gaa yaa ngi ci pexe nangam ak nangam ak nangam fu muy jaar ba génn nag na wax nangam ak nangam ak nangam wasolahu moo laaj leen kenn kenn dabal a dabal a bajari laaj ko rabiatu laaj ko laaj uxooti na bi mooy ay personnalité yu rëy la ñu ci mag ñoo fexe woon pexe moom laajal isaan waxuma ne isaan mais laajal rabiatu David ibn Rabi'an ñoo bokk baay laaj leen ku ci ne laaj ko woy le samlir on a seen gàcce gu rëy ga seen toroxte seen sooy seen istrie ci seen plan kañ la isa sarra ba nga xam ne ne tuur la almuxafa mooy faayit ji turaaba nafoon la taqdimu nafoole an faayida li himma yàkkamte tudde suuf see tax mu yéex a tudd ki tuur suuf si laaj leen isa sarra ba nga xam ne tuur na kan al muxafa Moustapha tuur la ci turam yi lu mu leen tuur turaaba suuf sa fi ruu mi ci seen lex yi ñu ne moo alaaji Malick bi na mu def ba génn te gars yi yëguñu ko fu mu jaar mu ne dafa am bu rëy bu jógee ci am lu mu ko jox loolaa ko solo lool رزقا له ko woon lool tas te Iblis te moo jël connexion saar bi moo tax ñu ne suratu Yaasin li maa loo ko jànge rek loola faj jëri na xëy teg bi ci Moustapha ne bi na bismillahi yaa والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم من جانج تنسيلا من جانج تنسيل تنسيل عزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد آخر قول الأكثرهم فهم لا يؤمنون إن أجل في أعناقهم أخلالا الليل الى الاذقان فهم مقمعون مقمعون نعم ومجيطون الذي بيدخلون خريط خريط خريط رسول الله يخيطك تعرفه أنا كيف تكيبك كون سيطة لن تخمي لن يوم يوم مدان لن تبسو سانيلي الله جي مالك نه ba yaasin jàngee yaasin yaa ah la ko fekk si nagul ko Moustapha mënoon na faa jaar suñ jàng yaasin duñ ko سيد الوجود وآله صلى الله عليه وسلم يقرأ ياسين yaasiina yàlla da ko fonk bu tuuti lay jar ci turam yonent yëpp day adressé seen tur te sàllalu nit du teggin sàllalu moo ne nga ko nit lay jël wala nga ne koo seet man ku mu doon doo jaar ci turam xamal gënaan yaa seydi xam na turi wàññi am déet yaa seyxi xamul turamam yaa abibi xamul turam ndaw si naan dikk yi sama nijaay nag nijaay amul tur dañ ko ormal moo tax waaw monsieur le préfet nag amul tur monsieur le président borom amul tur yooyu yëpp nag ormal ni ko tax noonu la yàlla waxee nit du caa ci tur dafay ormal rek moo tax mu ne laa tajulu du'a rasulikum ba'dukum ba'dan qad ya'lamu llahu ma antum alayhi musul a jaar ci turam aadama bi ko yàlla soxlaa dafa jaar ci turam carrément amul laq laq la ko ne yaa aadama carrément uskun anta wa zawjuka al-jannata fa kulaa minhaa shi'tumaa wa laa taqrabaa haadhihi ash-shajarata fatakuunaa mina adh-dhaalimiin nooy nax la mais ci turam la yàlla jaar inna arsalnaa nuuhan ilaa qawmihi an anzir qawmak kan Ibrahima xarit la waaye daf ne xul naa yaa naaru kuni bardan wa salaaman ala ibrahima carrément suleymaan nguuram gi li muy rëy yëpp wuli suleymaan riixa qudwa sarun wala sarun daawud kilifa la woon waaye yaa daawud inaa jàllaka xalifatan fi l ardi lay wax wala xad kaana fi yusufa ixwati yusufa الفلك مسؤول فذهب مكانا من المضيف فقال وضوءه مدب فلولا انه كان من المسلمين الذي سيغطي كان كل نبي على الخير فقد راسه كان نلتو تو تو بنا محمد القران بمدد لمي يا يا يا يا كمي بري بري نك 114 سار نك 60 ايزيب نك 126 nekk quatre cent quarante rukon nekk huit cent quatre-vingt sumun nekk six mille six cent soixante-six aaya nekk soixante-dix-sept mille quatre cent ci baat nekk deux cent trente ci araf amul fu ko yàlla ñeent yoon ñeent yoon la ko adresse circonstance ko may tuddoo ko la ko Ali Imran Ali Imran passage amul mu ñaaj tudd tur yàlla génn Ali Imran deux la moo sos ci Baqara soo jàngee ba am cent quarante daal fekk mi alam la mi mais boo xoolee xam ne circonstance yi yàlla mënul mu tudd tur bi boo ko départ rek dootoo ko gis ba jiisal lisaan yéexal maa yi daal yéexal lanaaf yéexal lanaam tabbu huut tabbu lëhdi Mohamed nga départ ci ndéngi dal ci bu tax dal ci ëttëra ba daa aj dal nuur ba soo gis rasulillahi nga jeexal nuur dem furxaan ba furxaan jeex nga tàmbi taat mi yox sooraan yaa tax mu tudd ko foofu nga demaat dootu ko gis ba lazina kafaru lazina kafaru boppi aaya ba deuxième ba rek ne wala sina amanu bima nusila ala muhammadin huwa alhaq kafara anum sayatum aslam baalum dootu ko gis nag dootu ko gis dootu ko gis ba fii ci taat bi saar bi ñuy wax ginnaaw fa tax naa yàlla la ne da ngeen ne nabi maa ko yónni ñi ne yónni ko wa kafee billahi sayidan ne muhammadu rasulullahi jërëjëf ابن Muhammad gisal li tax mu tudd Muhammad ca ca ca ca ca ca ca ca dëkk ba Ali Imran dañu xeex bala na bi jël victoire bi am ñu demoon extant dem ñu xeex ba ñu gis na bi tuum ak indi alal ju dul jeex trois cent treize contre mille ñu xeex trois heures de temps yu teg quarante minutes mu rey juróom-ñaar fukk yeew juróom-ñaar fukk ñi demul woon nag dañoo gërëte ne bu ootewaatee kenn du la fa dikk ñi def renouvellement dem baxut uut yàlla ñu génn naw seen bopp ne neen ba ñu tuutee la ñu duma marché bi ñu bari te yàlla seetaane nag seen bari ñu dàq leen xaaj rasulillahi bu ma ko musu ko ciy xeer ba ñu yi dem di naaj it bi alxaan daal seen ko dee yedd ñu ñàkk lu ñuy lay ne li ñu tiital te ki bi sa yuuxu ne Mohamed dee na gaa yi per ñu ne Mohamed la ñuy wax ne dafa dee yàlla ne ah it bu Mohamed dee rek ngeen bàyyi man mi ko yónni maa ngi fi yónni ko ci yéen mu nekk seen kanam dee tax ngeen toog am leen rey kat wala xar kuntum tamalawna al mawta min qabl an talqu رأيتموه وأنتم تنظرون لا كيف كيف أم البصاص من هو مخوتي لا رسول خطرت من قبل الرسول وهل كنتم نكون جندين بتمونا ولدي مرد ما وتكيش دواي بيسني القنات وأنتم تنصرون جندين كلا أريد ما إلى ما يروح جندي لينا محمد فدي وما محمد إلا رسول لا أكلا أذكر من قبل الرسول آه أغير ما تبوديه انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فسيجزي الله الشاكرين فلن يراش في سلا ساكرين looloo tax yàlla tudd ko foofu fii itam dañ ko teg tuuma ju rëy Seydou Ibn Arisatu doomam la nabi boo gisee mu bari jabar ñeenti yëf a tax am na ñu ko doon jam ci yow di naan yonent la boo xam ne ak yi jigéen rek la mais bi ñu ko seetloo xam ne ne waxuñu dëgg nabi bi mu dee ko sëriw kooku war a gën a soxla jigéen di gune na koy la fekk xadijatu amul ñaareel ba ni mu dee ki mu ñaareelee amul doom daf ko dafa màgget mu yërëm ko jur ko takkatul nag benn jàq ay màgget yoo xam ne ñii seeni bàyyi sedde saalam mu bëgg am baat ci ñoom takkaleen ñii di ñëw doole mu yore leen am ku leen dundal kon ikka ma taxoon mu def ko ak tasriha asna ak mawada yooyu ñeent tax mu takk lu ëpp ñeenti jëm wane ne dagan ci moom wane ne lii jokk bokk la wane yërmande yoon euh, euh, euh, Seydi Ibnu Haris sa jabar doo ko mën a takk mais boo amee jabar tey muy indiwaale doom ji doom ji am jabar bu tasee sañ ko takk ah istaqul la si uskul uh, la si alhamdulillah alayhi ولم تعلي إذا كل امسك سوجك وتخفي في نفسك ما لا مبدي وتخشى الناس ولا أحق أن تخشاه فلما قد قضى زيد منها وطرا فعدناك لكي لا يكون على المؤمن كلا في أسواج أبنائنا ولا تخون بدفكم yooyu ku ci nekk lëf nga def ba ñu dégracé la nga dee làkk di làkk ba ñu delloo sa gaaf joxal sa nit nga doxalaat ko ñu buuñaale fekk ko ci su waa ji àggale léegi ngeen dem ci ba xam ne koo xam ne général ni moom def na motif ñu arrêté ko dégracé ko muy làkk ba mu jotaat galanam muy làkk ba mu jotaat ay soldaaram kooku deuxième classe bu bokk ci quartier bi du ko jaaxal ah, te non kenn gënu ko di mag Adama امي فمجبوه كلما قام امي فدلوا على الانبياء والمرسلين سلامات علي ومن وعلي المدسر ومن وعلي المسمن ومن وعلي سنة القرآن منك لمين وسبحان الذي أسر بحب الله جبريل جوينا كرم محمد محمد رسول الله عهدا وسهلا بالملكين كاتبين لاجلين أشهد أن يا ملائكة الليل والنير إني خدت في الآيات قبل الممات وجهنا ينشر محمد محمد رسول الله I got him